ne bokki taalibe yi ak soxna li ma ci war a wax ne lu gàtt la ne diggante bi daal mooy ma sant Souleymane ñaanal ko ci mbir mi ne loolu suñu Abibu Jóob laa ko teg ci loxoom ne ku mel ni man ak suñu ak sëñ Fallou Jaxate mi ak sëñ Birane Gay ak suñ doomi sëriñ yi ak ci njabootam ndax soxna Aysa mii toog di soxnaam ne yaari waajuri soxna Aysa muy soxna kenn Gueye ak sëñ Ahmed nee yaayam soxna Fat Jaxate sama bàjjan moo leen yar yaay Sëriñ Saaliw moo moom mii yaayam soxna kenn soxna Fat Jaxate waajur Sëriñ Saaliw moo ko yar nee sëñ Ametit di doom ci Sëriñ Saaliw ci moom laa gisee maire boo xam ni ci moom laa gisee maire boo xam ni sëñ bi da ko daan dalal ci kër ci kees sëñ bi da ko daan dalal ci kees mu xëy bu ma koy woo si bu ma koy woo si ci ndékki. fekk mu bale kees gabam fekk mu bale kër gabamu seet wecc wecc wecc. loolu bokk ci kiimaani Serigne Touba. nee loolu bokk ci kiimaani Serigne Touba. li ma ciy wax mooy Serigne Saliou. nee mbir mi li ma ciy wax mooy Serigne Saliou. damaa mas a dégg muy wax Ablaye Wade ni ko. ni ko. ni lu dëkk bu mag di soxla rek Touba soxla na lii nag lenn la ci soxla si Touba. ne def lenn la ci soxla si Touba. kilifa yëpp ak taalibe yi. ndax kilifa yëpp ak taalibe yi. dañ daan jóge dem ba Ndakaaru. dañ daan jóge fii sëñ Souleymane ci xelam mu rafet. ne tey sëñ ci xelam mu tànn fii di daaru marnaan te lii sëriñ moor mi wax léegi ci te lii ci daaru marnaan man sëriñ Saaliw moo man sëñ Saaliw moo ma ne sëñ Fallou sëñ lu ñuy def ci wàllu administration lépp lu ñuy def sëñ Fallou nee na sëñ lépp lu ñuy def ci moom bokkul kon lii moom sunu yëf ne lii na ko yàlla barkeel ñaanal nag sëñ bi bu mu nee ma jege sëñ abi bu mu santal nu ko ko bu ñu noppee sëriñ bi mi. ngi nuyu mbooloo mi. di ji jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha mi bi nekkal sëriñ bi. nee di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha mi bi nekkal Cheikhul Khadim. di ci teg soxna nga xam ne mooy taaw Serigne Saliou. nee di ci teg soxna Waala mi nga xam ne mooy taaw Serigne Saliou. ak njabootam nee te ak njabootam toog nii teew. Serigne Cheikh Saliou Mbacke mi nga. nee di ci teg sëñ Cheikh Saliou mi xam ni. moo toog jotaayu Serigne Saliou. moo kilifa yi nee di nuyu mboolem kilifa yi fi teew. di nuyu waajuru Serigne Souleymane mi. toog. di nuyu Serigne Souleymane ci nag Serigne Souleymane. Euh, di ko xamal nee di ko xamal ni. liggéey bii. liggéey bii. moo ko ko def loo. ndax euh, firnde bi ma ci am. firnde bi ma ci am. téere bi sama waajur liggéey. téere bi nga xam ni sama waajur moo ko liggéey. te muy taa nga xam ni moo xal yoonu murit. nga xam ni moo taarixal yoonu murit. biñ koy traduire ci français. biñ dossier yi moom laa ko joxoon. jox. mu teg ma ci ci yoon. ne mu teg ma ci yoon. kon. buñ mooy avocat yoonu murit. buñ mooy avocat yoonu murit. loolu firndeel na ko. loolu firndeel na ko. ndax téere bi taarixal yoonu murit. bi taarixal yoonu murit. yoon wa mu jaar. yoon wa mu jaar. moo ko ca teg. nee moom moo ko ca teg. kon nag. kon nag. sëñ Tuba koy liggéeyloo. sëñ Tuba moo koy liggéeyloo. ñoo ngi ñaanal soxna Waalo Mbacke. ñoo ngi ñaanal soxna Waalo Mbacke. sunu borom may ko wér. sunu borom may ko wér. ak Serigne Cheikh Saliou Mbacke. ak Serigne Cheikh Saliou Mbacke. Serigne Cheikh Mouhamadou Mountakha seen kilifa. ak Cheikh Mouhamadou Mountakha ak Cheikh Mouhamadou Mountakha seen kilifa. ñoom ñëpp sunu borom bàyyi leen fi. nee ñoom ñëpp sunu borom bàyyi leen fi may leen ak wér. sëñ Souleymane nag. nee sëñ Souleymane. liggéey bi liggéey bi liggéey bu jafe la. liggéey bu jafe la. waaye yal na la ko yàlla yombalal. ne yal na la ko yàlla yombalal. ndax eh, ku ci soobu am ci ndam te daani sunu borom fekku la ci bariwut. ku ci soobu am ci ndam te daani sunu borom fekku la ci nee yombul. yombut. yombul de. waaye bu doon kenn nit. waaye bu doon kenn nit. yàlla na yow. yàlla na yow. yàlla na yàlla may ndam. yàlla na la yàlla may ndam. ci liggéey bi ci liggéey bii. te benn daani sunu borom bu mu. te benn daani sunu borom bu la ci fekk. ndax nag. ndax nag. ay jullit lañu. ay jullit lañu. ab jullit. ab jullit. ak jullit la war a jiital. am jullit la war a jiital. te Serigne sa kilifa. te Serigne Saliou sa kilifa. yoon. gani won lulul islam lulul islam aw ma cig defar aw ma cig defar aw ma cig yàq aw ma cig na kon yaw na kon ba nga baye France ga nga newoon ba nga baye France ga nga nekkoon mm, bàyyi Ndakaaru bàyyi Ndakaaru ñëw fii samp Tuuba ñëw fii samp Tuuba wana ne da nga fasiyene yéene wana ni da ngaa fas yéene wana ne da nga fasiyene taxawul islam wana da nga fasiyene taxawul islam yalla nga ci am dem yalla nga ci am dem ci katanu borom ci katanu borom bi barke sëñ Tuuba barke sëñ Tuuba sant ñëpp ñongi sant ñëpp gërëm ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp. asalaamaaleykum. Sall wax nga dëgg nee na téere boobu nag moo doon wax léegi mooy irwaaxu nadim boo bëgg xam kan mooy Cheikh Abou Cheikhul Khadim demal ci irwaaxu nadim boo demee mooy téere bi nga xam ci la ci sunu maam ja wane kan mooy Serigne Touba taarixu Cheikhul Khadim nee na téere boobu moom mi moo leen jàppale ci traduire ko ba ñëpp man koo xam. ci français ak arabe laysal ilmu bi kasat riwaaya bal innahu nur mahadraaya Sall Ndiaye maa daan ñëw xel koom di la fa fekk te bi may ñëw xel koom di la fekk mokkal naa alxuraan am naa certificat dégg naa arabe xam naa fiilu maadi xam naa fiilu mudaari xam naa amri xam naa mubtada xam naa ma <laughs> jërëjëf déglu ne di jiital ci nuyoo bi Serigne Abdou Khadir mii moom soxna waalo di suñu kilifa ne ñu fekk fi suñu kilifa sëñ Matar Jaxate mu baax mii ak suñu baay Birane Gueye ak imaamu sëñ Abibu ne ak sëñ Fallou Jaxate mi ne teew gi sabab bi mooy li nu séq ak sëñ Souleymane ne waaye ndigal da cee yokkuwaat ne danoo jóg baywaat soxna waalo joxewaat ndigal ne njaboot yépp moo tax ñu teew bëgg annonce avant première ngeen am cant bëgg nu siiw jàppale ni Ndiaye Pro barab bii di barabu communication di ngeen si ànd ak Xaadim Ndiaye bu ngeen amee lu ngeen di liggéeylu bu ngeen amee avisé communiqué bëgg ko jàllale bu ngeen amee publicité bu ngeen amee ngénte cant ngeen bëgg montage bu boole kook filmé bu mucc ayib lépp lu ngeen def comme prestation si wàllu audiovisuel contacte leen Xaadim Ndiaye borom Ndiaye Pro mi ngi si route de Belel jàkkaarloog boulangerie Gaynde Fatma woote leen gaaw si 77 325 68 20 bu liggéey bu tegu fi temps am tali bi gaaw efficace contactel Khadim Ndiaye da ngay am la nga bëgg si liggéey bu set wecc